mbokki jullit yi gannaaw ba nu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp lu nu yëg ak lu nu yëgul tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jëkkal di fàttalante ak sunu mbokki jullit yépp ne euh, xam ci yàlla duñu wax xam yàlla waaye xam ci yàlla lu bari lu yam ci suñu dégg ak suñu xam benn la ci ponk yi ñuy tudde imaan dëgg-dëgg jullit yépp xam nañu ne nangu nañ moo tax ñu di leen woy ay jullit yàlla ko am la waaye ni ñuy gémme ne yàlla ko am la mooy ni ko xam-xam jàngale te sëriñ bi bind ko ci ay téeréem imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu xaqiiqu amuk suñu boroom day am lu muy àndal yu koy gunge yoo xam ne kuñ la mën a wax ne mooy yàlla jubalil foofa rek su fekkee mënoo jubali foofa nag ndax xëmoo ca dara lu ñëw mën na laa yóbbaale ku ñëwit it mën na laa yóbbaale kuñ la wax it mën na laa tax a jóg moo tax <clears throat> xam yi gunge amuk suñu borom gi ci ponk yi gën a dëgër ci gëmu jullit bi la bokk yu say topp topp ca daa am ay tur ak i melokaan am ñu wax ne sax aw turam wenn rekk la yi ci des ay melokaan lañu muy allah boo ne allahu buñ ne la doon mën nga caa teg naan mooy ki mel nii mooy kay def lii mooy kay def laa bu ñu demee ba nga xam ne nag ci jamono dañ naan diw moom daa xam yàlla lool ba jaxaseeg moom ay bagaas su ko diw yëgee ak bu ko yëgut ña ngi koy dugal ci musiba mu rëy su ko defee ku xam ne juróom-ñeent fukki tur wala juróom-ñeent fukki melo ak juróom-ñeent yu ñu wax ne jot nañ koo takk ci yi nga xam ne kenn fekk ko ca moom kuñ naan la moom la rek demal xooli ko foofa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bim ne benn waay ana loo gën a mokkal ci alquran mu ne ko qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mu ne ko yow de tënk nga alquran ak melokaani suñu borom yépp fekk saar woowu dañ doon laaj yonent bi yàlla mi ngay wax góor lam jigéen la mag lam ndaw la daa njool wala dafa ndaama yàlla ne ko maa lay tontul suñ la ko waxatee neel huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad moo ne saa su lu nit gàtt-gàtt ëlluwa ñaar dana ko jàng waaye da cay romb rek jàll te moo ne tënk na lépp loolu moom kenn fekk ko ci kenn doon kenn rek mag ñi sax daanañu wax ne kenn moom bu ñu mësaan di yónnee guddi duñ jaar ci turu ki ñuy woo dina ana guddi sàngam mu ne maa ngi nii ñu ne kaay dem barab sàngam ci yónnenti sàngam ba mu génn ñu ne nañ ko dabi seen dund ga yëpp jàngale la woon daan nañ ko dabi mu dikk ñu ne ko àndal ak diw ndax kenn kat yàlla doy na ca kenn koo xam ne kenn du ko wéet yàlla doy na ca moo tax bu ñu ko bëggee tënk laal dañ naan Euh, kuñ la mën a wax ak lu ay mayam rëy rëy buñ ne ak guddoonu fan rek bay ba nga génne ko ci moom du yàlla moom ndax am na fu mu tàmbalee am fu mu yam buñ ne léegi la de waaye ak masa am kàttanu yëkkati lu lu ab saako rëy rëy wala nàmmaan wala wala wala wala wala bu ñëwee bu ne ko cas rek dem ak moom waaye léegi mënatu ko bay boo nga génne ko foofu su ma nee nas pusa ba yàgg mu naan kaay leen nasal ma pusa bi bay boo ngeen génne ko ci lim booba moo tax juróom-ñeent fukk tur yooyu ak juróom-ñeent tànn nañ ci juróom-ñeent rek ci lu gàtt ba jullit bu nekk euh, xam ne yàlla moom kenn du ko wutal moroom kenn du ko wutal ndend kenn du ko wutal ku mu bokkal dara bokkut ak kenn dara bokkut ak kenn dara moo tax buñ ne lee allahu mooy kan dag ne la huwa arrahmaanu rahim arrahmaan arrahim mooy borom yërmande tey ak ëllëg Eh, yërmandeem jooju wax na ci alxuraan ne foo séen rek wala nga mas koo dégg ci sa nopp rek yërmande suñu borom moo tax nga mas moo ko fa tax a nekk ba nga di ko dégg wala nga di ko teg bët yërmandeem jooju yomb naa xam ci kuñ ko leeral kuñ ci wax tuuti rek. nit ak jinne kenn mucc ci ak bàyyi ma yi eh, bu dee nit. dangay gis ci daara yi ku yor. gone di ko sonal lool ñu naan xanaa daa amagut doom rek jëlale nañ doom ji nga jur yërmande ji nga koy ëmbal waaye ku ma sa am doom sax doom joo gis jàppee ko sa doom foofu yërmande suñu borom la yàlla dénk ni tuuti foofu mu dox digganteem ak doomam wala baayam walla yaayam wala kenn koo xam ne daal ëmbal na ko yërmande bisub keroog yërmande suñu borom ñi moo ko gane si rikk fu ko ab julit tàmbalee dundee na fexe ba bañ a tàggoo tàggooteeg moom mukk ndax lu bokk suñu borom moom ku ci yàlla sedd war nga koo téye bu dëgër moo tax jur gi sax lu ñu wex wex seen doom du xam waxtaan wa ba ba muy toll ni ñoom danañ ko sàmm aar ko di ko jéem a dundal seen keneen kàttan ba may ba ma may man la ñuy man ku nekk dem nag wutali boppam foofu nag boo ko seetee jur gi raw nañ ci nit ñi raw gu metti ndax genn jur li ko tàmbalee ci yi gën a tuuti te ñu dëkk ak ñun ku ci teg bët jur sànni ko it bariwut moom kay fam ko denc moom kenn du fa jëm lum néew néew doole dana la wan ak mbañ bañ gu mat sëkk ba ba nga koy daan waaye moom doo fa jëm te fekk mi nga ànd sa kaw moom waaye dégg nañ ba tàyyi koo xam ne daa jur doom dem teg ko fenn rek benn xamut ma ngay dund xamut ma ngay faatu xamut lu ko fay fekk jël ko kon bokk ab jullit war naa dellu si xelam bu baax a baax cër bi ko suñu borom sedd ci boppam muy yërëm ku mu ko war a siqal rek mu siq ko yow ba mu bañ a des dara moo ne buur am na ñu ñu koy wooyee ci àdduna ba boo ko ko wooyee boo ne wal ma buur mu geesu la daal di defaraat mbubb moom sol sugg suggali ko waat daal moo ne buur de kenn rekk la mooy ki nga xam ne lu ko neex ci jaamam yi def bokk yi kuñ mën a wax buur ak lum foor foor foor lum kawe kawe am na lu am na fa sañ-sañam di yam ci digganteem ak ñu naa ko buur dund lu lekk lay sañ wolof sax da koy léeb naan moom sab dëkk bu mu tax ku wax ku wàpp ñaa nañ ko jekkali li muy moom moom dëkk bi te dëkk bi nit ñee tax nit ñi ci jiitu taxul ku wàpp mooy nañ ko jekkali loolu sañu ko waaye ki sañuy li mooy buur dëggantaan moom mooy ki nga xam ne soxlawut ñu koy wëral di xool ku ko wax lu mu ko wërta wax walla ku def lu mu wërta def buur dëgg dëgg dëgg moom mooy yàlla mi nga xam ne dara du yëngutu te yëgu ko lu yëngu it du ne tekk te xamut ne dana ne tekk te moo ne lu ca mën a am xamoon na ko lu jiitu bu yàgg yàgg te moo moo ko sotal moo tax wolof di léeb na sax meew moo gis mu tuuru rek yàlla na mutoon mu doonam soow xamoon na ne ci meew lay yam yéen nar a doon soow moom dara lu koy tuur du ko gis am na fu mu ko waxaatit ne garab gi nga xam mooy doon garabu pénc gorkatub garab du ko gis ba di ko gor yàlla de ko ciy um yàllaay bëgg mu doon garab garab moo tax moom rek lañu war a déglu ay ndigalam di moytu ay tereem mooy yëkkati nit moo koy daaneel te it amut lenn luy daw luy daw yaramam ndax yi daw yaramu nit ba bay tax du def wala muy def mooy sama jarbaata am ñu na am ñu saña wax ne sama taalibe am ñu sañ a wax ne sama lii la sama laa la daal di ci génne foofu rek génn na fa euh, sañ-sañu suñu borom bi ak moomeelam gi sama jarbaat bi sama ba sama sama yi jeex li dox diggante nit ak sama yooyee nag léeg-léeg mu tax a def ci moom luñ naan nu ko mën a defee ci ay xéewal yu bari yu mënoon a jox keneen wala mu rus koo def nangam ndax lam bokk ak moomay tax yooyu nag bokk yi dara doxu ci diggante suñu borom ak nit ñi bokkut ak kenn dara ndax moom moo tax lu mu naan teema ko bàyyi ndax nangam wala teema ko def ndax nangam amu ko. kon boog bu ñu bëggee noppalu dañuy fab suñ mbir rek wéeru ko ci buur boobu ndax kat ci loxoom la lépp nekk te ku wéeru ci moom boo bëggee wéeru rek mu xëcc la dootoo daanu mukk moo ne mooy ki nga xam ne it dara ump ko xaw naa ko junj léegi yaalamu xaainata al ayuni wa ma tux fi sudur lu nit kii séen bëgg caa dem xamoon naa ne dana ko séen xam ne ni dana bëgg wala dana ko bañ kon boog bu kenn nekk ci bu roq di def lam fay def dafay ne mën naa rëcc suñu borom nit ñi moom mën nañu ko bañ a gis waaye yàlla ma mi ngi koy ñëw di ko xool te dana ki nga xam ne yi day fekk lépp ci ay wax ak i jëf wama allahu bi gaafilin amma taamaluun am na feneen fu mu wax ne ma yakunu min najma salaasatin illa huwa rabiahum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala fekk lépp kon dégg mu ne nu mu demee woon nu mbir ma demee rek xamal ne nekku fa woon ak cër bi ko mën a jox jaamu suñu borooma ak ndax diw ñëwoon na kon lim umpule lu bari la moom fu mu nekkul rek xamu fa dara biir këram sax bu xasee ba tëj bunt néegam te fekk néeg ba cib saal ngay jaar xamatu saal ba lu fa nekk janax yi dañuy dox nu mu ko nu mu leen neexee ak loolu mel ni sa ndax lay nekk ci kër yi ak gunóor yëg lépp gunóor yi dañuy dem ba jaboot jaboot ak janax yëg lépp ak kaña yi kurkur ji bari mu soog koo yëg mu soog a yëg ne nekkati kër gi daa ami kaña wala ay janax kon bu xasee ba tëdd moom ba ub néegam saal ba sax la fay nekk xamatu ko waxuma laa werandaay waxuma laa ëtt ba waxuma laa ruq-ruqaan ya yàlla nag moom fekk lépp la xam dara ump ko mooy ki nga xam ne it bu fekkee euh, rëy rëylu jot na di wane ni nga toll moom dong moo ko sañ moom képp ko sañ nu waaye mën a toll lu ñu ko yëkkati yëkkati ak lu mu yëkkati yëkkati boppam moom bis bu bëggee diir yàlla moroom rek walla ñu wax ko ko weddiwu ko fa saasa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na waajal na fa muy dal ca saqar saqar ci sawara yi metti la bokk yàlla nañu ci yàlla musal yàlla sax yàlla suñu boroom subhanahu wa taala wax na ko ci alquran laaj boo xam ne moo gën a xam tontu li mu ne ndax ku dem jahannama doo fa fekk dëkkuwaayu mutakabiri ne ñu ne ah laaj gi mu koy laaj maandute la ak bañ ku jëm yoon woowa rek waaye moo ko gën a xam ñëpp alaysa fi jahannam masun lil mutakabirin ñu ne ah dag di yàlla na yàlla musal ci rëy rëy kon waaye mooy ki nga xam ne it wax naa kiy fekke waaye koo xam ne basiir bas basiir nag basra nag boo ak ne xujj di xoole gis ak xoole du benn am na ñuy ñuy xoole te duñ gis moom day gis moom mooy li ñëwagut ak ñii nga xam ne ni ngay tiime xorondoom yi ñu yanoo fii di yóbbu fee nga xam ne fi mu yanoo gis nga ko fa mu jëm gis yaa ngi gis yoon wi lépp ba muy àgg lu raw loolu la def ci suñ mbir yi ñun ñëpp kenn fekk ko ci kenn fekk ko ci lu barab lëndëm lëndëm la fay xew lépp mi ngi ne jàkk ak la gën a la gën a sori ci biir suuf sek la gën a sori ci kaw asamaan kon bokk bokk yi kooku kum jox ngay xoole deel xool fam santaane rek waaye nag mooy xakim xakim mooy ki nga xam ne ku xereñe ab àtte la ku xereñe ab àtte am na ñu ñu tudde xakam mooy ñi nga xam ne dañuy fekke xëccoob ñaari kuréel benn muy loola war a am juróom-ñeent fukki minit wala téeméeri minute ak wala daal du yàgg ba ëpp du yenn du fanaan la muy la muy la muy la muy nekk xakam ci loolu du yenn du àtte du fanaan diggante bu gàtt lay doon waaye am na keneen ku ko féete kaw xaakim mooy ki nga xam ne bu aw nit jotee moom ca lañuy dem ne ko àtteem ak diw bokk yi loolu ñi ciy liggéeyee war nañoo déglu ayab alxuraan bi suñu borom wax yàlla huwa alxakim xakimul alim xakimul alim léeg-léeg nga gis àttekat bu àtte ba yàgg mu ne fii xawma nuñ ci war a def ndax àtte jumtuwaay yi mu yore waajalutoon lu mel nii ñu dem wëriwaat ko seet nuñ ko taawiile wala mu atte ba noppi ñenn ñene man jubóowuma ci moom lañuy wax temps temps mooy recours waaye nag kii ñuy waxtaane moom tuuti ci li ci nit mën a dégg ku su néew mooy xakiim mooy koo xam ne ab atteem amut baat ca teg mooy fi mu wax ci alxuraan ne wallahu yaxkumu la muaqiba li xukmen maanaam moom buy àtte bala mu caa àgg na mu koy yamuy dajale ba àtte kenn mënu caa teg dara ndax joxoon nañu fii ci kaw suuf si am xel ñuy ràññeeru tàng ak lu sedd ñi naan xel ma ci bu tàng bi ñi naan xel ma ci bu sedd bi lépp dagan mu jox nu loolu yëg-yëg la bu nit di yëg loolu kenn mënu koo wax nit maanaam lii mu yëg ci tàng-tàng bi lii mu yëg ci sedd-sedd bi kenn mënu ko misal kenn mën naa wax ba sol nag waaye boo ko boo boo defee nam def mën ba ñu yëg la muy yëg yëg la yàlla moo koy def ci nit yàlla mi ñuy waxtaane su ko defee bu joxee nit ki yëg boobu muy tànn mu jox ko ay yox moom rek la ko jox yi muy jëfandikoo ba taxawal lim taxawal jox ko ay tànk muy dem fi mu bëgg a dem fépp te du ci fay dara ci tànk yi jox ko ay nopp yi muy dégloo di ràññee am néeg dana xumb lool ñu bari nekk fa waaye ku ree sax mën nga koo xàmmee su fekkee xamoon nga awturam wala wala nga xam di xàmmee jooyi gone yi ci lay demee ba jur gi sax dañuy xàmmee seen jooyu doom wala seen meem yaay bokk yi waajtaay woow la waajal nit nekkoon ko nag ëllëg a ngi ñëw teg tegal ko ci loxoom mu gis ko ndax jumtuwaay yi ñuy teg ak suba mu tudd ndekki ku ko indi waxtu wi lekk rek lay tudd waaye kenn dutu ko waaye ndekki beesu na xanaa danga naa ko suba kon ma denc ko ba suba ku ne kon kon xam ne suba ngi njëkk suba ngi ñëw atte bi ñu waajal ëllëg nag ku àdduna nattu ba di la àtteeloo fii war ngaa bàyyi xel ne moom dana la àttewaat ak ña nga doon àtte fii te du am recours du am cassation moo tax waru garab jullit moom bu bëggee noppalu fii ci àtte bu maandu day wax alxuraan nee na rek yam ca su boobaa du juum kañi àtte bu dee jullit la du juum ndax nee na inna yaxkumu ma yurid maanaam li muy àtte daf koy waajal waajtaay woo xam ne da koo ñor ba kenn du ne lu tax lii ak laa laaj bi muy laaj ci bàmmeel ak lépp muy frontières yi ak ëllëg mu taxawal ñu di peese ka def lépp ku nekk may waxal boppam eh, lii attekaay yi mën a lay mën a lay lépp ku taxaw ne maa ko def moom ñu ne ko déet da nga ànd sa sago mu ne ax ah kay ñu ne ko sëñ bi booba teyoo ko mu ne maa ko tey ñu ne ko yoon wu jëkk la mu ne def naa ko ba tey loolu ku ko loo ko mënal faaw ñu teg ko fañ ko war a teg loolu jërut ba ma koy def maa ko ci jublu te du yoon wu jëkk ma jëkk ko def ñëpp xam ngeen loolu dara jotuma it kooku moom faw ñu teg ko lañ ko war a teg kooku maa àtte boppam li tax mu ne nag wallahu yaxkumu la muaqiba li hukmi kii taxaw defoon defoon lam doon def mooy taxaw ci kanam ñëpp naan maa def nangam bi sangam maa def nangam bi sangam maa def nangam bi sangam ci sama sago ndax xame woon naa ne yàlla lu nekk yaar la ci bind euh, yoonu njub ak safaan ba yàlla ñu ci yàlla musal kon boog yàlla na loolu nañuy bàyyi xel ne ëllëg ñoom danañ taxaw ne nangam maa taxoon mu sotti ñu ne loo ci jublu woon mu ne a ah, sama bakkan rek nag kay kon bokk yi wàññi ko jot na rawatina kuy kuy tuddoo ab jullit kenn ku nekk mécc ma yor di ca liggéey mu di ca bàyyi xel baatub yërmande boobu ma waxoon ku nekk mën na koo jëfandikoo digganteem ak ñamiy liggéeyal waaye jëmmi foo nekk bu fekkee yaa nekk ca kaw nga jàppe sa bopp bëgg a jox sa bopp palaasu suñu borom bi subhanahu wa taala layoo ëllëg mi ngi ñëw ñaareel ba it nañ ma seetal nañ ma wërali nañ ma xoolalit ñay dem di ñëw yàlla nañ lay wax lam deme rek tamit dëgg waaye dema dem ba mu yàgg nga yëg sa bopp it di yëkkati ay wagg it yàlla ñu ci yàlla musal ndax ku loolu ku ko def suñu boroom nee na waajal na ab toogoom ca sawara yonent bi saqar la wax suñu borom ne jahannam ya yëpp ñoo sës ñoo sësoo fi sa kër yam rek fa la këru tàmm keneen tàmbalee waaye rawatina àtte nga xam ne bindukaay bu ndaw bii nga yore bindukaay bii nga yore mën naa tax ñuy joxe nit ki di joxañaale ay sëtam ba faw bindukaay bii nga yor mën naa tax ñu faat nit mbokk yi nag euh, lu ren jan jan ren a nga ca suufam te ku aj ci ab car lu mu sori sori aj cara nga ca kawam moo tax bi may jeexale mooy kàttan boo dégg ñu naan daa am doole ku am doole la euh, doole moom nit mën na koo am waaye kattan doole day jaax doole day jaax euh, kattan nag suñu borom moo ko téye euh, moo teewoon keroog suñu maam Ibrahima alayhi salaam ba ñu ko sànnee ci aw sawara la saan way gaaw gaaw laata muy dugg ci sawara wa suñu borom jox na ndigal sawara ci kattanam ak coobareem mu ne gëriif ba ab sedd dugg ko ca moom boo xam ne. bu yàlla newutoon wasalaaman sedd boo xam ne bard moo raw sedd bard ku ci dem da ngay barde ku barde mooy dana wax lu mu xamul lu doon dana def lum mu xamul lu doon kon su kat suñu boroom fi ñu koy xool bari na gis ko moo tax kuy ñaan nay ñaan yàlla ci aw turam yaa allah wala ci melokaan yi nga xam ne day tegtale ni moom képp mooy yàlla mooy maye moo tax mu wax ci alquran ne walillahi al asmaul xusna ca ñaan yàlla mën laa daal fa saasa fa nag mën ngi caa teg sa bët léegi wala mu xam ne la ngay ñaan gënut ci yow asa takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an lakum leneen loo xam ne moo gën ci yow te doo xam ne sax ñaan nga nangu na ndax seydina ibrahima alayhi ba muy ñaan ca makka naan rabbi jaal hada baladan amina ak makka gi ñu xam kenn xamul ñaata at la waaye la ci gën a warzuq warzuq ahlahu min athamarat ñi fay dem demee ñu bari nangu nañ ne meññeet yañ fay jaay benn bu ci nekk ba ba gën lay doon kon ñaanal suñu maam Ibrahima ak tey ji ñaata at la moo tax ni su waree ñaan na ñaan yàlla rek yam ca bañ caa boole kenn bañ caa boole lenn ci turam bi wala ci melokaanam yi su boobaa yàlla daf koy daal di wuyu fa saasa waaye daf caa dafa digle tere walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha mooy ndigal li waaye teraga mooy wazaru lazina yulxiduuna fi asmaihi na ngeen fa ni ñukk ni yekk bu naqari te forox leneen lu dul yàlla ngeen di ca ñaan ndax kat ñooñu di leen xëcc ngeen jëm ci ñoom ba ngeen wóolu leen ba ba fas far sax gëm leen jox leen place suñu borom yéen ak ñoom sa yujzawna maa kaanu yaamalu bu ëllëgee kenn ku ci nekk danañ ko tegal ci loxoom lam defoon benn mu ba namtiku ko maanaam foon ko ndax bëgg ko wala mu bëgg koo sànni mu të mu tax ci loxoom yal na nu yàlla defal dégg ak topp te sellalal nu suñuy pas-pas suñu digganteeg moom ci gëm ko ci turam yi ak melokaanam yi te yàlla xew sunu cër yi ci jëfe ndigalam yi ci suñu cër yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin